Samedi 2 avril 2022 ravi de vous retrouver dans votre programme du week Sénégal VSD euh, ñu aman mbégte euh, jàkkaarloo ak yéen yéen suñuy fidèles téléspectateurs yi nga xamante ni yéen safoo saa su nekk suñuy programme ci Sénégal TV waaye itam suñu leen yi nga xam taamu ngeen di ko suivre suñu site internet euh, www.senegal7.com ak tamit suñu ay plateforme comme suñu compte Facebook ak yu ni mel donc ñu leen di jaajëfal saa su ne ci fidélité bi nga xamante ni am ngeen ko rek ñëw daal di fi dalalaat euh, keneen euh, jëm ci wàllu politique ngir dina mën a waxtaanee ak moom ci li nga xamante mooy actualité bi saa su ne nag suñu euh, choix suñu la actualité bi laaj kooku nag du kenn ku dul Ousseynou Ly Ousseynou Ly bokk Pastef waaye itam di coordonnateur Pastef bu Médina li ñu ngi lay nuyu te amaan mbégte di la recevoir Sénégal 7 TV. maa ngi lay Penda amaat également plaisir ñëwaat ci sa émission. Mm-hmm. di nuyu tous les en képp koo xam te ni yaa ngi suivre Sénégal 7 à travers les ces différentes plateformes di nuyu tous les mm-hmm. si jàmm bu baax. sant yàlla bu baax. naka seen activité yi Pastef waaw ñu ngi ci kawam. moom yéen a ngi wax lu leen sax ci ci ci ci réew mi mais loolu dinañ ci gën a ñëw euh, ñu nara nag gën a sóobu gis ngeen suñu invité nuyoo na ak yéen ba noppi gën a sóobu ak ci waxtaan bi ak moom euh, ndax li ñu war a waxtaanee dafa bëri fi ma bëgg nag ñu njëkkee ko muy visite bi président Macky Sall amal ni ki démb foofee ca Touba euh, teew na foofu gisante ne ak ki nga xamante ni moom mooy xalif général kulli murit di Serigne Mountakha Mbacké waaye itam kàddu yi mu fa yëkkati bokk na ci ni dinañ ko daal dina accompagner Serigne bi ngir ñu daal di taxawal li nga xam moom la Serigne bëggoon ci Touba am ndox mm-hmm. mu neex euh, bu nga xamante ne jógee direct ci Lac de waaw donc euh, je pense que loolu wareefam la. Mm. c'est un devoir euh, en tant que président de la République. Mm. que lépp loo xamante ni euh, plus généralement loo xamante ni day day day day day dellu ci soxla askan wi mu am ci taxawaay rawatina euh, initiative yi nga xam ni kilifa diine yi dañ koy jël. ku ci mel ni le xalif général des Mourides sëñ Muntaxa yal na ko fi yàlla yàggal euh, donc amul beneen euh, yitte lu dul ñëpp gis nañ que ni euh, yitteem yëpp mooy fexe luy yëwénal dundu doomu aadama mm. rawatina ci gox bi ci bi ci Touba mm. donc état bi nga xam ni dafay saytu li nga xam ne dafa jëm ci culte ndax responsabilité la mm. Euh, li nga xam ne lu jëm ci wàllu culte état di ko di ko saytu mm. donc yoon la gouvernement bi ak ki nga xam ne mooy jiite réew mi ñu jël taxaw ci seen kéemtalaay kàttan mm-hmm. ndax soxla bi nga xam ne moom la sëriñ bi di dégtal mm-hmm. soxla yooyu du mbiru boppam waaye mbir la yoo xam te day dellu ci dëkk bu sell bi di mhm. Touba. Mhm. di dellu ci li nga xam ni day delluwaat ci askan bi donc yoon la état mhm. am ci taxawaay boobu noonu. d'accord euh, beneen mbir euh, Ousseynou naka nga dundee déjà euh, match Sénégal bu keroog bi ak ak Égypte yaa ngi woon stade wala nekkoo fa woon le coup des lasers qu'est-ce que ça t'a fait. non jotuma woon dem stade mais bon comme tous les sénégalais suivre naa ko vraiment am ci mbégte bu baax a baax. Mm. di féliciter suñu gaynde yi. Mm. di leen euh, ñaanal. Mm-hmm. Euh, que mbégte gi ñu jox depuis depuis ci kan bi. depuis bi waaw mbégte bi bañ a bañ a dàq quoi. bañ a dàq rek doyul. Mm. donc di di yeesal suñu suñu félicitation ak suñuy ñaan. également féliciter le coach. Mm-hmm. Euh, vraiment ça été un moment de de joie ndax lu mel ni suñu réew da soxla comme dañ nekk ci nguur goo xamante ni. Hmm. maanaam day xoj nit ñi rek. donc bu amee ci wàllu sport yoo xamante ni dina permettre sénégalais yi vivre mbégte yu mel nii dafay dafay gën. ban moment moo la gën a marqué quand même ci match bi man moom personnellement laser yi ma marqué. bon laser yi euh, c'est c'est c'est parce que Sénégal amuñu amuñu woon habitude boobu. Hmm. mais dafa fekk nit bi pas sénégalais yi dañu wane loo xamante ni dafa am solo. fulla ak fayda. souvent damay wax naan en terme de di ngeen souvent nit da ngay sekk ñoom du ñu xam lu dul réponse ci liñ leen liñ lay def. nous Sénégal dañu habitué waaw dëkku teraanga la et tout ça dëkku teraanga lañ naam waaye nag nit du ñu gën a bëgg boppam réew du ñu gën a bëgg boppam réew du ñu ëpp fulla mm. te keroog noonu la sénégalais yi wane ndax lañ leen jox rek lañ delloowaat. Mm. donc. Euh, loolu sax en quelque sorte dafay xamee ne lu xaw a fekk si tout seen logique yéen waa Pastef euh, parce que tout le temps li ñu leen di dégg mu ngeen di wax seen leader di ko wax mooy euh, en quelque sorte bu la nit defee dara da ngay da ngay. waaw foofu. ji nga état d'esprit boobu noonu moo ñu war a animer également ci suñu lu jëm ci suñu intérêt réew ah. football ci la bokk. parce que hmm. itam ndam li nga xam ni moom la gaynde yi di am amuñu ko lu ludul pour Sénégal. Hmm. amuñu ko ludul pour sénégalais donc état d'esprit boobu nag moom la ñu war a continuer di am ci lépp loo xam te ni c'est des sujet d'intérêt nationaux mm. moom la ñu war a am ci jàng bi moom la ñu war a am maanaam bépp loo xam te ni dafa laaj taxawaay mm. pour muy jariñ askanu Sénégal mm. état d'esprit boobu noonu posture boobu noonu lañ ci lañ ci war am mooy bu ñu nekkee suñu biir euh, lu ne mën nañ ko supportante mais bu ñu génnee ci biti ñu doon benn say Mm. réew ya ñu jàkkaarlool wala yi ñu sekkal mbir ñu xam ni lim leen jaral pour ñu am sàngam ñun tamit lool la ñuy jaral pour ñu am sàngam. Mm. donc monde bi nag mooy évoluer foofu. Mm. donc respect ak euh, positionnement bi ñu lay jox mu ngi dépendre tamit ci yow li nga pare pour jox ko sa bopp. Mm-hmm. donc xam naa ni jour boobu sénégalais yi comprendre nañ ko. Mm-hmm. donc ñoom tamit <laughs> andi seen wàll ci laser yi rek. <laughs> Euh, euh, keroog moom xaw ma fan de yi moom soxna sàpp ci waaw mais parce que def moo sala keroog moom ca euh, <laughs> vraiment loolu moom l'histoire retiendra bu mu aj bal ba non bon euh, dafa waroon aj bal bi rek <laughs> mais quand même bi ni mu ko ayee keroog moom dafa spectaculaire non mais déjà man je dirais pas même sax petit match bi mais ni Sénégalais yi manqué am détermination mm. donc sa gis nga réew mu dajaloo mm. nit ñi booloo dëgmal benn mbir ñëpp bokk benn yéene ñëpp bokk benn objectif. Mhm. seetuñu kii fii la bokk ak kii fii la dëkk ak kii kee la àndal kii mais ñu ñëpp ñu bokk cet objectif là. Mhm. donc forcément dina yomb yàlla defal ñu ndam. Mhm. donc te keroog looloo génn donc avant match bi posture bi am que ni gëm nañ que ni fi mu toll nii Sénégal war na mën a ñëw jouer ci dëkk am qualification biir dëkkam. donc ni mu nekkee déter ni ko nit ñi gëmee. ba mu ba mu ba mu ba ñu jël ko transformer ko en action xalaat ay mbir yoo xam te ni jàpp nañ ku ci nekk fi nga war a mën a jàpp dem nañ sax bay wax gi définir na ni tribune sàngam nañ fi teg tel supporter tribune sangam donc loolu yëpp pour euh, am dam la mhm. donc état d'esprit boobu nag moom la ñu ñëw wane ko ci match bi mhm. dañuy ñaan état d'esprit boobu nag continuer sur tous les sujets d'intérêt nationaux euh, ci loolu ñu gis vendredi euh, mhm. am Euh, Sénégal ñu logé logé wu ci Pouloir ci ak euh, Pays-Bas. Mhm. Euh, Équateur ak Hollande. Mhm. ak tamit pays organisateur bi di Qatar. ñu mhm. bëri nag ginnaaw loolu ñu am yaakaar ni peut-être Sénégal dina gën a mën a sori ci bi lépp compétition te loolu ñëpp di ñaan. pourquoi pas ça pour une première fois comme Sénégal ni mu doonee jël Coupe d'Afrique. coupe du monde tamit ñëw fii war na war a mën a nekk est-ce que partagé nga quand même boobulee souhait wala boobu boobulee gis-gis par rapport ak poule bi nga xamante ni bokk nañ ko ak yeneen dëkk yi ñu bëri jàpp ni peut-être loolu nekkul lu métti pour ñu pour ñu génn ci. non xam nga euh, ci li ñu xam ci football quoi. Euh, ndax bon màggee nañ foo xamante ni. Mm. dëkku zone football la. ku ne Medina mm. wax vraiment équipe yi fa nekkee tout ça. Mm. Euh, compétition africaine bokkut ak compétition mondial parce que maanaam compétition africaine. opportunité bi ngay am pour daje ak yenn équipe yi di dajewaak ñoom lu ci ëpp ci ay éliminatoire lu ci mel ni ay Coupe d'Afrique bokkut ak coupe du monde nga xam ni benn équipe bi nga nar a daje si sa match de poule mun ngeen toog dix ans du ngeen wala cinq ans du ngeen du ngeen daje doo xam lu bari noonu ci boobu mm-hmm. mais nekk na compétition boo xamante ni man ci suma seetlu mm-hmm. ñi koy gagné ñëpp ce n'est pas juste sur la base du football mais ce qui ce qui ce qui est autour du jeu mooy en termes de concentration c'est-à-dire le management mm-hmm. man loolu laa seetlu parce que Euh, jot naa def ay gëstu xool ci ay reportage wala ay documentaire équipe yu mag yi en général euh, bu ñu dee préparer mondial nan la ñuy préparer mondial mm-hmm. donc ça se joue sur des détails mm-hmm. détails yu sew yoo xamante ni en général moo lay permettre yow nga boo ci boo boo boo peegee détails yooyu rek di nga mën a àgg ci sa objectif donc mm-hmm. en termes de qualité de joueur wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla le Sénégal amul dara lu muy envier benn équipe Mhm. ak nu mu mën a toll parce que Sénégal je je que Sénégal rek nga mën a gis 23 joueurs yëpp. Mhm. ñëpp nekk ay titulaire seen club te ñëpp du nekk ñu ci ay club yu ndaw. Mhm. loolu moom dëgg la moom. donc buñ dee wax ay ay en fait la matière mooy joueur côté jeu euh, joueur et tout ça manqué wuñ ko. mais li ci des nag maintenant c'est la gestion de l'équipe dans sa globalité. lu jëm ci wàllu en fait le management de l' euh, en général foofu nag. Mm. Euh, foofu la apport bi gën a ëppee solo ci ay compétition internationale. kon mel ne bu rôle bu rôle majeur bi euh, Aliou a joué moom mi nga ne bon y' a pas que Aliou Cissé parce que Aliou Cissé ci aspect technique bi la nekk mais ci aspect technique bi sax y' a pas que Aliou Cissé. y' a l' technique directeur technique national ci la bokk mais les préparateurs physiques ci lañ bokk donc c' est un tout. quand je parle de management de l'équipe dans cette compétition mais en tant que coach tamit xam nga ni euh, c'est-à-dire lu tax ma wax la loolu mooy en tant que coach tey même su fekkee ni staff bi yaatu na. Mhm. Euh, parce que am na fédération derrière am na euh, comme ni nga ko waxee ni les autres techniciens sont là et autres mais xam nga tamit le dernier mot lui revient moom mi nga xamante ni peut-être moom mooy classé à chaque fois. effectivement le dernier mot lui revient mais. pan euh, pour que mu àgg ci dernier mot boobu y' a un travail d' ensemble. je suis d' boo xamante ni ñooñu ñoo koy jox tous les éléments. pour mm. lui permettre de prendre les bonnes décisions. Mm. donc ce travail d' ensemble là. Mm-hmm. mooy management bi. Mm-hmm. médi aspect médical ci la bokk donc compétition juste pour dire que ni compétition internationale li la ci gën a mën a may ndam ce n' pas souvent ci jeu en tant que tel mais sur des détails yoo xamante ni dañu am impact énorme sur le jeu. Mm -hmm. Donc, moi, je pense que ni, euh, il faudra beaucoup plus gérer ces détails-là, mm -hmm. euh, permettre à l'équipe de jouer sur une sérénité, euh, détail bañ leen sonal. ñu mën a concentrer wu ci seen objectif. d'accord te bu ñu amee objectif na man je crois forcément que ni a ah, li ñuy ñaan de mooy ñu jël coupe. te yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañ ko yàlla defal waruñoo war a mën a mais tëwuñu. voilà Sénégal amul dara lu ko të. ñun. amul dara lu ñu tëj ci àddina mais volonté la rek nit yaa yemale sa bopp fenn mhm. mais nit ku nekk yàlla def na ci yow toutes les prédispositions ba lépp loo bëgg foo bëgg àgg ci addina bi mën nga fa àgg mhm. mu nekk ay kàddu yu am solo euh, analyse Ousmane euh, ki nga xamante ni moom mooy Ousseynou li euh, jëm ci football rawatina